ci ñu fas yéene leen ko jukkil faram-fàcceel leen li gën fas fës ci xëtu yéenekaay yi fas yéene ko doo rek fu Quotidien mi xëy sax waxtaan gu yaatu ak Aly Ngouille Ndiaye di candidat ci élection présidentielle yu 2024 ñaawlu na coppite yi am ci gox yu bëri mu ñeel administration territoriale chamboulement ga ci am gannaaw ndajeb conseil des ministre gi woon keroog njiitu réew Macky Sall jël dogal affecté tuxal ay préfet sous préfet yu bëree bëri décret gi ni mel la ñaawlu moom Aly Ngouille Ndiaye jàpp ne politique rek moo ci laxasu ndax bari na ñañu njort na xëy na ay préfet sous préfet yu ko jege la ñu tuxal leen euh, feneen euh, bu ñu sukkandikoo ci Aly Ngouille Ndiaye ay kàddoom ci Walf Quotidien Walf Quotidien xëy du ñu dégtal njiital groupe Walfadjri maître Cheikh Niass euh, mi dellu soit ci dogal gi tukkee ci cour suprême mi jox dëgg Walfadjri ñaawlu itamit dogal doxalin ak dogal gi CNRA jëloon ci jamono daal di coupé woon signal Walfadjri ci bëccëgu juróom-ñaari fan ci weeru février ba fukki fan euh, ci weeru février 2023 euh, gi ñu ne euh, gannaaw ci wàll politique ca Mbàkke mbir ya nag teeri joon ci mu ba fu mbaxana doone benn cour suprême dal ci sénéra Walf Walfadjri sàkku yi tamit lam ca ñàkk yëpp moo xam ci wàllu koom ak yeneen ak yeneen ñu fexe ba jotaat ko yéen a bi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk moom Walf Quotidien yéen a bi di enquête xëy di ñu enquêtal ci li nga xamante mooy stratégie de communication doxalin gu bees goo xam ne moom la Idrissa Seck amee ci jamono ji ndax kenn déggatu ko gis ko sax doon na du jafe lool te moo ne ñu ngi ci jamono euh, candidat yi nga xamante ne ñooy dagaan batu askan wi ña ngay wut euh, ndeele maanaam ay parrainage ngir mun a jëmmal seen candidature ci waxtu googee Idrissa Seck waxut euh, kenn déggu ko Dawda Ba di kenn ci waa réew mi jàpp ne Idrissa Seck nii la mos di doxalee ci wàllu politique euh, politique am àndut ak wax bu wax jote dina ci addu euh, mu ngi ci yéen kaabi di euh, enquête yéen kaabi di 24 heures xëy di ñu enquêtal mbirum politique u Sénégal Habib mom moom dal na ci administration beek ak itamit ni mbir yi juree njeexital ci kuréel gi boot magistrat Sénégal ci wàllu dossier Ousmane Sonko. ak élection présidentielle yi ñu jëm Habib xam la ne nañu def ndànk ci mim réew ndax la jotoon a gësam yeewoon fitna euh, fale ci Côte d'Ivoire mu ngi jóge woon ci administration des élections waaye tey jii Sénégal ci jamono ji mu ngi ci guddi gu bër setagul ba tax na nañu moytu lu bëree bari kenn warta euh, fagagal wala boog bunduxatal wala boog euh, xañ ak ak yelleefu Ousmane Sonko mu bañ a bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm Sonko def ci war a bokk bu ñu sukkandikoo ci Habib ñu ngi ñuy dégtal mbirum immigration clandestine am na ci doomu Sénégal ya ne ca Maroc tàggatémbe fa yéen cabinet ëpp nañu juróomi téeméeri euh, migrant ñooñu nag ci lu yàggatul dañ leen si ci réew mi yéen bi moo ñu ko yëggee moom euh, vingt quatre heures. yéen a bi di l'info xëy du ñu dégtal loi gu soxal wàllub jot information ci anam yu mucc ayib maanaam loi d'accès à l'information société civile ma ngi cay sàkku njiitu réew Macky Sall ngir mu gaaw ci ci ndax boo xoolee ci Afrique soowu jant Sénégal ak yeneen réew yi rek ñoo ci desandi di tendeefal mu ngi ci yéen a bi di l'info yéen a bi di euh, Sud Quotidien xëy du ñu dégtal envoyé spécial euh, bu 4P njiitu réew Sall am na ndombol tànku bu bees Emmanuel Macron. Mélenchon jot naa recruter njiit réew mi euh, Macky Sall mu ngi ci yéenekaay bi di euh, Sud Quotidien yéen kabi di Le Soleil mu ngi ñu dégtal envoyé spécial euh, pacte de Paris euh, pour les peuples e la planet googu lépp euh, ndombol tànk gu bees moom la njiitu réew Macky Sall nara ame Emmanuel Macron moo ko koy jox bokk na ci liggéey gu yaatu gañu ne mun na ko caa amal moom njiitu réew Macky Sall bu demee ba jógee ci boppu réew mi maanaam doonatul njiitu réewum Sénégal ci jamono ji am na lu tegee di ko xaar mu war ko wéyal yéen kabi di source xëy ñu dektal musiba ga am ca biscuiterie euh, xaaj guddi lañ fa sànni ab liir gu tooy xepp yéen cabinet ci ab wetu garage yu mécanicien lañ ko sànni euh, jël euh, morceau sañ te gémmiñ ga bañoon mu yuuxu police jot na teg loxo googu lépp liir ma ngay wéyal enquête ngir xool kan moo def li ni maanaam jur sànni ca biscuiterie yéen kaabi di stade mu ngi ñuy dektal Aliou Cissé mi fas yéene wéyal li fi ne maanaam la woon ñawoon faw woon eh, ca la mu eh, nara indi ci coupe du monde gi ñu jëm wàccaa gi éliminatoire yeeg Sénégal war cee dajeek eh, Soudan du Sud ak Togo Aliou Cissé jot na fësal ñaar fukki gayndek ñeent yañ cay tànn ñu fas yéene ca jongante mu ngi ci yéene yéen kaabi di suñu lamb ne daañu jongante ci wàllu bëre eh, tafatin Eumeu eh, Sène eh, combat dëgg gàngoog noonu la ko yéen kaabi xamle Eumeu Sène moom moom la ñuy séntu bu 16 h cinq jote mooy mbër mi njëkk a dugg ci arène nationale bu dimanche jote tafaatin juróomi waxtu maanaam cinq h ca la fas yéene dugg ca lamb ja Euh, bokk na ci suñu lamb ne combat la goo xamante lu ne mun na caa tukkee ndax ñaari mbër yi kenn ku nekk ak fa nga mënee diggante Tapha Tine ak euh, Eumeu Sène kan moo ci daan laaj lagu euh, takku saanu dimanche jii daañu am tontu li mbokk yi yema fu ñu jeexale tënk xibaar yi ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamou Diaby Gassama moo ñu koy faram ci xibaaru digg bëccëg gi jaajëfal Famara Dieng